diggante ñaari dëkk yooyee di dakaar ak Paris jëm nag ci ay coopération yu dox ci diggante Sénégal ak France moo waral nag tukkib nemmeekub ñetti fan nag mu ngi koy amalee ca France moom Elimaanu jëwriñ bu Sénégal ak naataangoom bii di Elisabeth Borne yéenekaay bi ne ñoom ñaar ñooñee nag démb sëgg nañu nag ci ay chantier ak i coopération yu war a dox ci diggante ñaari dëkk yi ba ñu ca noppee nag Amadou Ba dalal na noo Le Maire di jëwriñ ju ñu dénk wàllu économie ay milliards ak projet yoo xam ne rek taxawal nañu ko ci diggante ñaari réew yi fësal ci xëtam bu njëkk di ñu xamal nag relation économique bi am ci diggante Sénégal ak France jamono ji nag kilifa yi ña nga cey gën a xar seen tànk tubéy xaatim nañu juróom fukk ak juróom benn ci ay convention yoo xam ne rek dinañ ci dugal mille cinq cent milliards lu soxal nag pàcc bu njëkk bu teer bi nag France moom ma nga cay ñaxtu waaye Sénégal ca boobee jamono nag ma ngay gën a jël ay engagement kaay bi di L'As Quotidien nag daal di dikk na waxtu def bilan ca lañ toll ci coopération yi nga xam ne mooy dox ci diggante réewu France ak Sénégal yéenekaay bi ne Amadou Elisabeth Borne nag gis nañu démb ca cinquième édition bu séminaire intergouvernemental bu franco-sénégalais càmbar nañu fa nag lépp luy projet dox ci diggante ñaari dëkk yooyee yër la yëglekaay bi Walf Quotidien ni Macky Sall Amadou Ba ak Amadou Mame Diop ñoom ñett ñooñee ñëpp nag amul kenn ku ci nekk ci biir Sénégal l'observateur xëy dëkk tey jii nag ci tuuma yi nga xam ne rek ñu ngi koy gàll mu di tuumay koppar jëm ci opposant yi nag dalee ko ci Abdou Diouf ak la mu tuumaaloon maître Abdoulaye Wade ci ay koppar yu dox ci seen digganteeg Libye Macky Sall jëm ci wàllu blanchiment d' argent ak Ousmane Sonko mi ñuy tudd ci ñaar fukki millions ngi dollars yoo xam ne bàyyeekoo na ca Qatar jëm ci mooma lu mu ci mënti doon yor-yor bi moom ma ngay xam ne daal jamono ji ñii di ni politique yi da ngay sàkku ñu jox leen seen i àq ak seen yelleef ngir bu ko defee ñu mën a amal wot yi nag bokk ci ñi nga xam ne rek dañuy tànn kiy jiite réewu Sénégal ci atum mille vingt 2024 fekk jamono joojee nag Sud Quotidien ànd akum njàqare ci njàng meeg njàngale mi ak lu jëm ci l'école yeeg université yi ñaari weer rek ginnaaw bi ñu tàmbalee jàng mi wàccaay wi nga xam ne rek jëm ci élection centrale syndicale yi benn weer des ci kan bi ñu ne déetawaay nag ñu nar a soobu campagne présidentielle yi que loolee waral organisation yi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu jàng jàngale mi di waa COSYDEP ña ngay fëgg seen gémmiñ nag di yëglu ci li nga xamante ni nii nag moo mën a doon saafara ngir ñu sauver atum jàng jàngale mi les économies nag loolee nga xamante ni nii moo di élection centrale syndicale yi élection présidentielle yi ak lii di kan bi cocktail explosif la ko tuddee jëm ci jàngameek jàngale mi ndax boo moytuwulee mën naa jur ay pëccëxoo ñeneen ñoo xam xam ne rek jamono ji ñu ngi ci guddi gu bët setagul bokk na ci waa Sonacos bés bi le jour di ñu xamal ne nag société boobee mi ngi ci warum koppar gu méttee métti ndax nag ay jafe-jafe yoo xam ne rek mi ngi koy la benn pepp gerte amu fa waral nag jamono ji ñu dakkal lépp luy liggéey bi ñaar fukki milliards ci suñu xaalis nag moom la ñuy wër jamono ji ngir mën a dekkilaat boobee société le quotidien yëglekaay dikk ci wàllu émigration yéenekaay bi di xamle ne nag ñaar fukki junneeg juróom-ñaar toftal juróom téeméer ci ay ressortissants yu bàyyeekoo fii ci Afrique soowu jant dugg nañ ca tugal bokk na ci ay ivoirien ay guinéen ak i sénégalais ci boobee jamono le témoin daal di àddu ci yoon wu sori wu xale yi ñuy woowee gp kangourou di def naka soxal naka dem beeg dikk bi ci jaww ji ak express colis xale yooyee naka toll ci diggante ñeent ba fukki at ak juróom ay tuut tànk yoo xam ne rek seeni waay waajur dañ leen soppi def leen ay porte bagage ci yéenekaay bi di réew mi people naka woykat bi di Sabel Dieng dellu suwaat na ci carrière musicale bi muy amal naka seq waxtaan ak kii di Anna Thiaw yër leen yëglekaay bi